dalle nag jàmm mbokk internet yi wax waxeen jibatina te bi la yoon dafa génn ci géewu politique bi dem ca art musical ba ko jëfandikoo jamono ji di Wally Seck mi ñëpp wax ne la mu wax dafa safaanoo loolu ak dëgg loolee moo tax ba ñëpp di ko joxar bi ngir wax ku mu wax loo xamante ne amul waaw moom Wally Seck dafa waxoon ni que dafa war a amal ab prestation ci benn cérémonie all star game bi nga xamante ne ma nga nekk fële ci Chicago waaye lu nuroog takk ndeeru bi sax daanaka kenn seenu ko fa lépp mu ngi tàmbalee boo xamante ne jot na ko publier ca page Instagram am di ca wax ne maa ngi leen di nuyu yéen waa kër gi te di leen xamal ne yéen ñu ko yëgul woon weekend bi du ma joué fële ca baarum ndax dama nekk ci ab tukki fële ca États-Unis ndax dama war a def benn prestation maanaam dama war a joué fële ca All Star Game fële ca Chicago mu mel ne jamono ji dëgg-dëgg wala sekk ca ba muy joxe boobule xibaar yaakaarul woon na dina am bile ampleur ndax ñu bëri jamono ji ñu ngi koy saboté ak yekk lu mel ni xeme boobule xibaar bu mu joxe woon da doon na indi jiri jaaxa ci xelu sénégalais yëpp ndax kat li ñu doon laaj rek mooy dëgg-dëgg Wally Seck mii naka la war a mën a def ba war a mën a nekk ki nga xamante ne mooy joué ci boobule soirée bu mag bu siiw boobu ca biir États-Unis nga xamante ne star yu mag yu siiw yi dong ñoom ñoo fay dajee ndax Wally eggoon na foofu moom la ñëpp doon laaj waaye daanaka li ñu doon xaar ci moom mujj ñu ko gis lépp lu ñu am ci moom ci boobule soirée bu mu annoncé woon ne dina ca bokk naam sax ne dana lay di kii Wally Seck amuñu ci mooma lu dul ay nataal yoo xamante ne jot na ko partagé mu jëlee ko ci fi ñuy wax maanaam ca coulisses ya maanaam fa nga xamante ne fa la ñuy faral di préparé woo ngir dugg ca seen ya ak yeneen yu mu fësal def ko ci boobule dîner de lancement wala sax bi nga xamante ne mi ngi ci ànd ak kookule ñuy wuyee kookule ñuy woowee Tacko Fall ndax lii lee ab fin mu communication rek la woon wala daf doon jéem may boppam ab buzz wala daraja wala sax itam dafa nekk rek rek ak war na ko def lu ci mënti am jamono ji amu ci lu ci lu ko neex lu ci mënti am jamono ji amu ci lu ko neex ndax internet yi yakk nañ ko ci lu ne ba tax mujj gi moom moom lee di Wally sekk dafa mujjee rek delluwaat foofu le ci réseaux sociaux yi nga xamante ne fa la jotoon na publier boobule bataaxal daal di koy dindi lu ci mënti am ca dëgg-dëgg ñun lu ñu baaxoo di xam ci boobu boobule événement nekk ab jongante annuel buy jot di am ay sune ne ci joueur yi gën a xarañ ci wàllu basket daanañu fa amal itam ay conférence yu mag at daanaka gisuñu benn artiste bu jógee feneen bu fa mës a joué ñi daal di joué foofu daal dëgg-dëgg ay américain dong la ñuy doon te léeg-léeg dañuy nekk wala bokk ci ñi nga xamante ñoo gën a siiw lool la ci réew moomule daanaka sax ren jilee ñi fa jot a joué bokk na ci woykat bu siiw boobule di Jennifer Hudson moom mi nga xamante ne jot na fa ci at miile daal di def ab hommage bu mag jagleel na ko Obama ak Kobe Bryant mu nekkoon ab spectacle bu doy waar te yanj lool ñu fàttali ci ne bu bule événement waa NBA dañ ci faral di amal la ab weekend bu bari lool ay activité bépp joueur bu ñu tànn boole la ci boobule événement da ngay mujjee am tour all star Wally sekk nag moom jot na sax daanaka nekk ci boobule événement waaye nag ab touriste dong la fa loolu moo waral daanaka sax mu daal di jot am ay nataal ak kii lay di tàkko fa jërë ngeen jëf oui incha allah rabi waaw dimanche ba waaw mooy sama birthday bi sax dimanche incha allah incha allah rabi allahumma amin dem leen ak jàmm yeeg ak jàmm incha ñu ngi ñëw incha allah rabi. le golden boy de la musique sénégalaise vous dit bye bye New York direction Dakar incha allah maa ngi ñëw dimanche incha yàlla na yàlla yóbbu ci yoonu jàmm incha allahu rabbi incha allah <laughs> Mohamed waay. <laughs> dimanche nag la birthday bi foog sama birthday yi. Ah. ah bu ma rabbi yow ñoo kon ba dimanche foog incha allahu rabbi jaajëf yoonu jàmm dama la jàmm yeeg ak jàmm incha allah wan loo. yàlla na incha allahu rabi incha allah Mohamed waay. dimanche nag la ñuy birthday bi foog sama birthday yi. ah